ngeen doon ay ndaw di entrepreneur wala sax porteur de projet seen coono jeex na rajo Afia FM ci lëkkaloom ak réseau population jeunesse développement du Sénégal ñoo leen di jagleel yile émission ñeel wàllum entrepreneuriat des jeunes samdi bu nekk lay doon ci seen rajo Afia FM 93 point 0 bu 16h jotee jàpp 17h ngeen di ci ànd ak Mame Seynabou Thiam Seck ngir participer nag ci boobule émission mën ngeen def 88 628 05. cinq 05 88 cinq 05 05 Euh, mbokk yi xarit yi ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax baax ci sefo beeg faale bi seen rajo Afia FM ak topp bi ngeen topp seen émission Actu Jeunes tey ñu dikkaat fas yéene ànd ak ñii di waa réseau POPDEF comme neen ko déggee ci spot bi di kuréel goo xamante ni day yëngu ci wàllum jeunesse développement waaye wàllum environnement tey jii nag euh, ñoom la ñuy àndal si bile émission euh, ñu fas yéene leen nag xamal nag ak réseau boobu lee di POPDEF ci lan la ñuy yëngu te projet bi nga xamante ni ci leen nekk mu ëmb leen muy projet jàppale ma di leen ko fas yéene waxtaanee tey leeral ko ba mu leer ni euh, si ànd nag ak ki nga xamante ni moo di filip Diatta di chef de projet bu réseau POPDEV ñu bàyyi ko rek mun na d'abord ak suñuy euh, auditeur asalaamaaleykum mbokki auditeur Afia FM maa ngi leen di nuyu ku nekk ak turam santam di leen ne tey jii fas yéene nañu ñëw fii ci Afia FM euh, présenté leen réseau POPDEV ak le projet jàppale ma mm-hmm. kon muy Philippe Diatta responsable wala chef de projet bu réseau PopDev Ah, di leen fàttali rek ni réseau la boo xamante nii euh, ndaw ñi ñoo leen tax jóg ah, di leen jàppale euh, ci lépp loo xamante ni ay projet la wala euh, loo xamante ni rek dafa jëm ci wàllum ci wàllum entrepreneuriat ah, ñoom dinañ leen taxaw bu baax a baax wan leen yoon bi nga xamante ni moom ngeen war a mën a jaar ba seeni projet taxaw wala it ba ngeen créer seen emploi bopp kon dañuy tàmbali rek ak Philippe nga wax ñu déjà réseau POPDEV mooy lan Euh, jërëjëf euh, Mame Seye euh, donc réseau PopDev kuréel la boo xamante ni mu ngi sosoo depuis 2008. Mhm. donc di liggéey ak ndaw ñi donc suñu kër de métier mooy ndaw ñi lépp lu soxal ndaw ñi rawatina ci jëmmale ko ci wàllum wér-gu-yaram maanaam santé de la reproduction. Mhm. mais aussi ci wàllum xëy maanaam entrepreneuriat. donc réseau PopDev euh, ni ma ko waxee donc euh, ay kuréel ñoo ci bootoo te réseau PopDev aussi mi ngi bokk ci ay plateformes yu bëri yoo xamante ne ñu ngi xeex ci wàllum wér-gu-yaram d'une part mais aussi ci xeex lépp loo xamante ne mooy ñoŋal euh, taxawaay ndaw ñi ci Sénégal. Mm-hmm. luy jëman ci wàllum maanaam lutte contre l'alcool la drogue donc euh, sunu loxo ngi ci. mais aussi lépp loo xamante ne mooy euh, promouvoir employabilité des jeunes tey ji réseau POPDEV soobu na ci loolu. Mm-hmm. Euh, kon lépp loo xamante ne daal ndaw mi ngi ciy yëngu de façon générale euh, yéen a ngi ci biir euh, yaa ngi koy wax sànq da di accompagner ndaw ñi nan lay demee ndaw bi day ñëw indi projet am wala yéenay ñëw proposer ko projet nan ngeen di def ba mën a di contacter wala di mën diisoo ak ndaw ñi ngir mën leen accompagner Euh, jërëjëf euh, tey jii mën naa wax ni euh, réseau PAPDEV ak Positive Planète mi nga xamante ni mooy benn ONG dañu amee financement boo xamante ni Union européenne moo leen ko jagleel mhm. à travers nguuru Sénégal ministère de l'emploi de la formation et de l'insertion mhm. projet boobu ñu tuddee ko jàppale ma Euh, projet boobu nag lu ko tax a jóg mooy euh, benn mooy ñoŋal taxawaay organisation de la société civile ci mbirum emploi et employabilité des jeunes. Mm-hmm. ñaareel bi mooy fexe ba euh, dooleel ndaw ñi. képp koo xamante ni da nga am idée de projet ci entrepreneuriat. Mm-hmm. nga ñu ñu jàppale la tete la xalal la mettre la en relation pour nga mën a am financement aussi topp la ci sa bi ngay door sa entreprise. donc loolu mooy projet jàppale ma ci kaw loolu nag euh, wax nga ni ndax euh, ndaw bu am projet nan lañ koy recevoir au niveau du réseau POPDEV mm-hmm. maanaam euh, dispositif bu ñu mettre en place ma fàttali ne jàppale ma ci onze centre de formation professionnelle lay yëngu mu am nag benn incubateur boo xam ne dañ ko berndeel rek pour euh, organisation de la société civile te réseau PopDev euh, am ko te ci fan yi ci ginnaaw le 16 la ñu inauguré incubateur boobu incubateur mooy lan. incubateur dispositif la maanaam euh, dispositif la boo xamante ni lu ko tax a jóg mooy nan la ñuy yore maanaam gunge ndaw ñi ci seen wàllu entrepreneuriat. damay faral di jël misaal ci bu ñu jëloon ginaar. Mm-hmm. ginaar bu nenee xam nga day boof nen ba. Mhm. Euh, boof ko ba mu mat mu tas ko maanaam mu toj ko. Mhm. mu am cuuc. te cuuc yooyu aussi bu ñu màggagul daf koy boofaat ba mu mënal boppam mu bàyyi ko. donc incubateur mën nañ koo méngalee ak ginaar boo xamante nen la maanaam nit ki dafa am idée de projet. Mhm. idée de projet boobu mën na am sax euh, leeragul ndax euh, li mu bëgg a def ak marché bu muy séentu leer na donc. boo intégré dispositif d'incubation boobu. Mhm. maanaam dañuy càmbar sa idée de projet ba xam ndax idée de projet boobu mën nees na nekk. te aussi euh, li nga ci yaakaar di nga ko ci am. aussi est-ce que am na marché boo xamante ne di nga ko kii donc dispositif boobu moom moo lay euh, xelal tete la ba nga leeral sa idée de projet d'abord. ensuite mu jàppale la ci taxawaay sa plan d'affaires. Hmm. maanaam business plan bi. bu loolu weesoo nag Euh, dinañ la gunge aussi képp koo xamante ne mooy euh, structure de financement yi euh, yi fi nekk fii Sénégal ñu xelal la ne la kat bu fekkee da nga bëgg a def agriculture ñu ne la ah agriculture de banques yi ak nangam sangam banques yi ñoom ñooy financer agriculture. Mm-hmm. lii mooy seen conditionnalité remboursement bi nii la. ñu xelal la nga dem ci vers ces de financement boo demee ba jot sa financement yi dañ lay gunge pour. nooy tàmbalee sa entreprise. Mhm. maanaam ndorteel ga euh, maanaam ñu jox la aussi tàggat la ci wàllum euh, gestion financière marketing sa communication personnelle maanaam yow sa sa jëmu bopp nan nga mën a fësal sa mbir ba taxawal sa mbir ci euh, biiru concurrence ba. loolu yëpp la ñuy tuddee dispositif d'incubation mhm. donc bi ngay am idée de projet ba ñëw nga élaborer sa business plan ba am financement ba door say activité ba euh, nga xam ni kat sa activité yi tey jii amal na leen njëriñ dispositif boobu moom la ñuy tuddee incubateur. Mm-hmm. di fàtte rek ba tey ñi ngi seen émission Actu jeune tey ñi ngi si àndal ñu di waa réseau OPOPDEV ak projet bi nga xamante ni moo di jàppal maa ñu si dalal kii di Philippe Diatta di chef de projet Euh, foofu foofule ci réseau POPDEV ñuy leeral rek euh, li nga xamante ni mooy réseau POPDEV moo leen waaye it euh, taxawaay bi di fàttali ni yéen jeune boo xamante ni am nga question wala suggestion boo xamante ni ba nga ko def mën nga woote si 88 628 05 05 Philippe bu ñëwaatee si seen taxawaay yooyu kon ginnaaw taxaw bi ngeen di taxawu ndaw ñi am na it benn volet formation it bu am ci biir da ngeen di tàggat ay ndaw. Mm-hmm. waaw am na formation parce que dispositif bi ma ko waxee effectivement am na formation parce que. loolu yëpp boo seetloo dooleel la xam-xamu ndaw ñi ci wàllum entrepreneuriat ci maanaam ci par exemple gestion financière gestion comptable gestion de la clientèle wala leadership wala comment prise de parole communication nan ngay jëflante ak say say client loolu yëpp nekk na loo xamante ne dañ la koy euh, jox ci dispositif d'encadrement bi ak d'accompagnement bi pour que ëllëg boo demee ba taxawal sa entreprise kat nga mën a eh, jàmbaarloo ak xeetu défi yi nga xamante ne moom ngay jànkoonteel ci wàllu eh, activité bi ngay déroulé. Mm-hmm. Eh, ba ngeen tàmbalee ba léegi ñaata ndaw ngeen tàggat. mën naa wax ni tey jii jàppale ma day door commencé guñu enrôlement bi. parce que dañ nekkoon ci phase renforcement d'abord organisation. ñi nga xamante ni ñoom ñoo bootu ci projet jàppale ma. organisation 14 association la de la société civile yoo xamante ni ñoom ñooy ànd ak réseau POPDEV. ak euh, Positive Planet mi ma tuddoon sànq. pour mettre en œuvre euh, mm-hmm. projet jàppale ma. ci kaw loolu nag euh, tàggat nañu leader association yi la ci wàllu gestion de projet ak mobilisation de ressources. Mm-hmm. beneen phase bi ñëw nag mooy enrôlement ndaw ñi nga xamante ni gannaaw bi ñu inauguré incubateur ba. Mm-hmm. dañuy jàll ci enrolement ndaw ñi nga xamante ni ñoo am ay idée de projet pour incorporer le dispositif d'incubation gannaaw loolu nag ci onze centres de formation professionnelle yi nga xamante ni ñoo fi nekk Dakar ak Thiès mhm. euh, écoles yi nga xamante ne ñoom la ministère tànn fas yéene fa euh, implanter dispositif d'incubation yooyu ñoom it dinañu enroler seen i ndaw ñi nga xamante ne dañu am seen diplôme seen lijaasa ba noppi mhm. pour ñu incorporer dispositif boobule mhm. waaw Euh, ndaw yooyu euh, ñaata ngeen fas yéene enrôler parce que si ay xibaar ñuy doon jot ni soxla ngeen 450 jeunes pour accompagner leen. effectivement euh, projet bi mu ngi ciblé 450 jeunes ci 450 jeunes yooyu la am na juróom fukk yoo xamante ne réseau pop POPDEB ñoom lañ ko jagleel. yeneen 400 yi nag war a bàyyeekoo ci 11 centres de formation professionnelle yi ma nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci euh, projet jàppale ma bi mhm. waaw li fàttali rek ba tey ñu ngi seen émission Actu Jeunes ki ñuy dalal di Philippe Diatta chef de projet euh, bu réseau euh, PopDev si dure bi programme bi ñaata weer lay durée programme bi mu ngi duré ñetti at ak lu teg mhm. muy 40 mois donc zone d'intervention yi fii la Dakar ak Thiès la moo tax Dakar ak Thiès pourquoi pas les autres régions Euh, damay xamal ni euh, projet jàppale moom projet test la nee naa la ci njëlbeen euh, projet bo bi nga xamante ni nguur gi moo ko sant a travers le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'insertion bëgg ñoŋal employabilité ndaw ñi nga xamante ni ñoo am seen lijaasa ba pare amuñu xëy mm-hmm. donc projet pilote la maanaam projet test la phase test bi nag dañu ne dañ koy def fii dakaar ak Thiès. Mm-hmm. te onze centres de formation professionnelle yi nga xamante ni ñoom ñoo lëkkaloo bokk ci projet bi. Euh, ministère ak euh, Positive Planète ak réseau PopDev fas yéene nañ leen gunge ci dispositif d'accompagnement boobule dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes mm-hmm. diplômés. Mm-hmm. Euh, aussi ñu gis ni ba ngeen di def seen inauguration siège jàppale ma wala siège incubateur bi yéen a ngi koy yóbbu Pikine dans la banlieue dakaroise. Euh, Pikine sous-emploi dafa tar moo tax ngeen yóbbu ko fa wala pourquoi le choix de Pikine. Euh, mën naa wax ni euh, en fait c'est un choix stratégique yàlla def na Pikine gaa zone boo xamante ni bu ñuy wax mbirum xëy peut-être à l'image des autres zones de de de Dakar et du pays nekk na zone boo xamante ni vraiment ndaw ñi nga xamante ni. Euh, non seulement amuñu euh, xëy xaw nañ fa bëri. Mhm. mais aussi euh, c'est stratégique parce que dama doon wax ni réseau POPDEB organisation de la société civile dafa bokk ci li nga xamante ni moom la. tey ji projet jàppale mi bëgg a ñoŋal seen taxawaay ci wàllum employabilité des jeunes. Mhm. donc le fait que on ait choisi la zone de Pikine dem taxawal fa incubateur bi c'est pour wane ni gannaaw képp koo xamante ni am nga idée de projet moo xam da nga jàng wala jànguloo xam nga secteur informel bi am na euh, wàll bu baax a baax ci mbirum euh, suñu koom-koom. Mm-hmm. donc euh, incubateur réseau PopDev nag waxuñu da nga jàng am li jaasa déet dañu wax ni bépp ndaw boo xamante ni da nga am idée de projet création d'entreprise war nga mën a ñëw ci incubateur boobu la ñu tàggat la xelal la gunge la. ba nga taxawal sa entreprise wala boog da nga yàgg am sa entreprise bopp nga bëgg a yokk man man sa entreprise nga ñëw ñu tàggat la wala dooleel la ci yeneen xeetu xam-xam yoo xamante ni da ngay mën a développer sa entreprise loolu moo waral euh, ñu implanter incubateur bi pikin donc pour dire que euh, esprit d'ouverture bi euh, par rapport a l'incubateur du réseau de bokkul incubateurs yi nga xamante ni dañ koy teg ci centre de promotion professionnelle yi nga xamante ni ñoo bokk ci projet bi parce que ñooñu euh, incubateurs yi nekk ci centre de formation professionnelle ndaw ñi nga xamante ne rek ñoo am seen lijaasa ci école yooyu le ñoom ñoo am sañ-sañ dugg ci dispositif d'incubation bi. d'accord kon euh, incubation bi c'est pas ouvert à tous les jeunes. incubateur bi c'est ouvert à par tous les jeunes pour le projet jàppale ma xam nga nee naa la 450 jeunes la. Mm-hmm. dañu cibler ay école de formation professionnelle ñu ne école yile nañu def phase pilote bi phase test bi ci kaw loolu nag ñu ne réseau PopDev dañ lay jagleel benn incubateur yow comme organisation de la société civile la yow mën nga enrôler cinquante autres jeunes yoo xamante ni mhm. ñooñu du ñu seet ndax jàng nañu wala jànguñu mais képp ku am idée de projet d'entreprendre war nga mën a ñëw ci incubateur boobule ñu gungee la euh, tàggat la facilité sa am financement. Mm-hmm. ba pare ñu topp sa démarrage d'activité ba bi ngay taxawaay. Mm-hmm. mais Philippe problème Sénégal xam nga tamit bari na ay ndaw yoo xamante ñi ngi fii amuñu diplôme. amuñu formation professionnelle mais tey soxla nan accompagnement wala financement ngir mën a décoller euh, defar seen entreprise wala doxal seen seen business est-ce que ñooñu yéen a ngi leen di prendre en compte. Euh, mën naa wax ni euh, li nga wax am na solo Euh, am na yeneen xeetu projet yoo xamante ne nguur gi teg na ko fi mooy moo xam ci wàllum yaa ngi doon wax ci wàllum euh, amuñu euh, formation. Mm-hmm. yaakaar naa ni tey jii ay trois fpt wala ONFP ay kuréel la yoo xamante ne nguur gi teg na ko fi pour mën a dooleel ndaw ñi ci wàllum tàggat formation. moo mm-hmm. am yeneen xeetu structure moo xam ay DER pour wàllu financement. Euh, réseau POPDEV nag taxawaayam tey jii mooy euh, ci dispositif d'accompagnement bi maanaam euh, nan la ñuy fexe gannaaw am na ñuy tàggat ndaw ñi ci wàllum formation pour am seen métier ñu am ñoo xamante ne dañuy financer projet yi mais dispositif d'accompagnement bi nag tey réseau POPDEV positionnement bi c'est dans le cadre de l'accompagnement de ces jeunes maanaam nan la ñuy fexe ba ndaw ñi bu ñu jotee financement Euh, ñu mën a am xarala ak mën-mën gi nga xamante ni. Mm-hmm. dinañu doxal seen mbir ba euh, entreprise bi bañ a tëjaat. Mm-hmm. waaw donc ñun euh, réseau PopDev tey ji ci taxawaay boobu la ñu nekk. Mm-hmm. yàggul dara ameloon ngeen benn session de dialogue Pikine ak ay ndaw ñu jéem a xool. problème bi exactement fan la yow ci wàllum emploi des jeunes beex yooyu projet boobu tey li ngeen ci jàpp gis ngeen ni euh, trouver ngeen solution bi pour pour pour mën a résoudre même si c'est pas à cent pour cent mais quand ngeen indi tuuti solution ci euh, problème emploi des jeunes dans la banlieue à Pikine précisément. donc je pense que euh, solution moom tey ji mënuñu wax ni trouver nañu solution mais dañu nekk di teg ay jéego yoo xamante ni te yaakaar naa ni ku ci jiitu sax mooy mooy nguur gi. Mm-hmm. naam teg na fi ay kuréel yoo xamante ni. Euh, fas yéene nañu en tout cas jàppale ndaw ñi ci wàllum xëy à travers d'abord formation yi ñuy wax mais à mm. travers euh, euh, financement yi nga xamante ne mettre na ko à la disposition des jeunes mm. tey jii seetlu nañu dans l'environnement dans l'écosystème de l'entrepreneuriat ndaw ñi peut-être dispositif accompagnement bi des na lu tax mu des parce que peut-être xalaatuñu woon ni tey jii bu fekkente ne yow maam sëy jox nañ la xaalis nga war a euh, def sa entreprise mm-hmm. mais gunge gi ci war ak saytu gi ci war peut-être euh, dañu yaakaar ni des na euh, te à l'occasion de la session de dialogue bi ñu amee woon à Pikine yaakaar naa ni ndaw ñi am na lu luñ ci wax mais aussi dañu wax ni responsabilité c'est des responsabilités partagées mm-hmm. d'autant plus que ndaw ñi tey jii man bu fekkente ni dama bëgg a entreprendre soxlawul ma am ay millions sax pour door am na yenn xeetu yoo xamante ni euh, soxlawuloo xaar yow yaay njëkk jël say initiative demal sa bopp leneen euh, loo xamante ne day ñëw dooleel li nga tàmbali yoon day gën a baax donc euh, responsabilité c'est des responsabilités partagées parce que nguur gi naam mi ngi jéem à travers des projets des programmes mm. mais aussi ndaw ñi aussi war nañu gën a farlu parce que tey ji yaakaar naa ni de mon point de vue li gën a yàq mbir mi mooy euh, système bu ñu euh, nekkee mooy dañ lay euh, former boo amee sa diplôme soit état bi recruter la walla privé bi recruter la hmm. tey ji état bi nag mu ngi soppali doxalin mu ngi wone ni ni kat ci ñaari yi amoon maanaam nga am sa diplôme état recruter la wala euh, beneen entreprise privée recruter la am na beneen xeetu euh, am xëy boo xamante ni euh, moom la ni ñuy war a bàyyi xel muy entrepreneuriat maanaam taxawal sa mbiru bopp doxal ko mm. donc volet boobu donc yaakaar naa ni état bi mu ngi ciy door a dugg bu baax te aspect boobu am na solo Euh, te euh, damay jël rek misaal euh, situation Covid 19 bi mhm. kenn xalaatuloon ni peut-être situation bi dinañu dabu. tey jii dama yaakaar ni bu fekkee état mi ngi dëggal taxawaay entrepreneuriat ci stratégie de l'auto-emploi renforcer ko. Mm-hmm. yaakaar naa ni euh, lu baax la parce que tey jii euh, am na ñoo xamante ni seen xarala am nañu ay initiative am nañu ay idées yoo xamante ni buñ ko taxawalee euh, ñëppay ciy gis seen njëriñ daal. et pour pour juste appuyer li nga wax ni y avait un jeune boo xamante ne man il m'a beaucoup marqué mooy ki doon ut ay déchets yi sànni ci mbedd mi. pour di defar ay tableau ay tissu yoo xamante ni tailleur yi dañuy ñëw pare sànni ko mu rassembler ko def ay collage mm-hmm. def vraiment ay affaires yu rafet donc bu ni xëy amul ci réew mi. ku nekk ci ñun am na benn talent buy nelaw si yow il suffit juste nga jug ni dama koy yee pour pour mu yeew il fallait voir vraiment ce jeune il fait du travail extraordinaire mu nekk loo xamante ni euh, état jàppalewu ko euh, peut-être réseau PopDev dafay ñëw accompagner ko mais ba muy tàmbali fekk fa réseau PopDev mhm. kon mu mel ni kon euh, Philippe ndaw yi tey ñoo war a jug pour ngir mën a entreprendre seen bopp tout à fait tout à fait li nga wax ni dafa am solo parce que tey jii jeune bi nga xamante ni moom artiste la mhm. il a fallu moom moo ko commencé yëfu boppam. saxawal ko donc ku ko jàppale rek day dem. lu gën a yomb mooy jàppale koo xamante ni déjà euh, euh, yàggoon na tàmbali. Mm-hmm. Euh, par rapport koo xamante ne mosul xam mbir mi mu ngi ciy doog a dugg. Mm-hmm. donc ci incubateur bi nekk Pikine te réseau Pop Dev war ko doxal donc approche boobu la amee maanaam am tëjuñu maanaam c'est ouvert dans la mesure où. tey jii képp koo xamante ni jàpp nga ni yow euh, li ngay liggéey euh, te mu amal la njëriñ da ko bëgg a dooleel mën nga ñëw ñu gunge la dooleel la ubbiyaat la euh, yeneen feem yoo xamante ni moom ngay taxawal ci sa mm. biirum entreprise pour mën a gën a ñoŋal doxal say say activité say business mm. donc mooy développement business bi mooy wax parce que loolu am na solo parce que dañuy fàtte ni dañuy xalaat ni pour entreprendre rek il faut nga door déet am na ñoo xamante ni door nañu te kenn jàppalewu leen seen mhm. propre moyen la ñu njëkk a taxawal mhm. leneen fekk leen ci te ñooñu mu wóor la ni expérience bu ñu en emmagasiné ci seen euh, mbirum bopp maanaam ba dooral euh, taxawal seen mbir ku leen doon yokkal as tuut ñooñu dañuy daal di daal di dem parce que xam nañu mbir mi miin nañ ko mhm. te ñeme nañ ko donc bokkul ak koo xamante ni ba tey jii euh, donte sax bëgg na ko def mais mën na am est-ce que lu muy def xam na ko donc ça peut poser des problèmes aussi mais ñun euh, au niveau du réseau PopDev approche globale boobu la ñu am et je pense que euh, fii ak ay diir dinañ fi dellu siwaat waxtaan ci yeneen xeet parce que entrepreneuriat bu ñu koy wax tey ji mënuñ ko tënk ci lépp dafa am ay fànn ak ay fànn ci euh, bu ñu doon wax waxu entrepreneuriat. Mm-hmm. tey dañu nuyoo naan salaamaaleykum ak projet jàppale ma xamal leen ni kat projet jàppale ma mu ngi fii euh, nekk fi pour ndaw ñi. Mm-hmm. mais aussi xamal leen ni dispositif incubation bi nga xamante ni inauguré nañ ko euh, ci ci fan yi dispositif la boo xamante ni ñu ngi wax ni ndaw ñi ah képp koo xamante ni xalaat na ni. Euh, am na idée de projet te bëgg ñu orienter ko accompagner ko soutenir ko mm-hmm. euh, en tout cas euh, il est le bienvenu au niveau de l'incubateur de Pikine dama doon wax waxu jeunes yi mais aussi entrepreneurs yi entrepreneurs yi nga xamante ni ñoo nekk zone pikin ak beneen yeneen département peut-être bu fekkente ni gis nañ ni tey jii soxla nañu ay renforcement de capacité yeneen fànn mën nañu rapprocher auprès de l'incubateur pour xool nan lañ leen mën a orienter wala dooleel leen ci yeneen fànn yi nga xamante ne mooy gën taxawal dëgëral seen taxawaay ci seen wàllu koom-koom mm-hmm. di fàttali ba tey mbokk yi ñu ngi wéy ak waa réseau PopDev tey li ñuy waxtaanee mooy taxawaayu PopDev jëm ci ndaw ñi ak euh, projet bi nga xamante ni dañoo nekk ci phase pilote comme ni ko euh, monsieur Diatta Philippe waxee euh, ñu koy dooree nag Ndakaaru ak Thiès ñu am nag benn incubateur boo xamante ni ña ngi ko def ca pikin lépp rek ngir di mën a dalal ndaw ñi ngir waxtaan ak ñoom bu baax jëm seen wàllum projet xool na lañ leen di taxawoo accompagner leen ba lii di seen i projet mu taxaw mu mel ni kon liggéey euh, du ni ñàkk na ci réew mi mais quand Ah, ku ci nekk am na as lëf loo xamante ni soo ko dooree tey am na koo xamante ni jàpp taxaw na pour jàppale la muy waa réseau Pop Dev kon day baax ah, ñun ku ci nekk daal nga jéem ah, boo demee ñu jàppale la incha allah di nga gis résultat ci li nga xamante ni moo di moo di sa projet ba tey Philippe bu nu wee nii ba tey di fàttali 88 628 05 05 mbokk yi ngeen di def ngir bokk yéen si waxtaan bi bu dee am ngeen ay question yi ngeen bëgg poser à Philippe concernant le réseau Pop Dev waaye projet jàppale ma ngeen def 88 628 05 05 mi ngi toog incha allah lépp bépp question boo xamante ni laaj ngeen ko rek dinañ leen si tontu euh, nem gën a euh, gaawee. contexte bi Philippe gis nañ ko fan yi ak li nga xamante ni mooy ñëwaat euh, moo di wàllum immigration bi gisee ne jeunes yi ñëpp daan utali mbëkk mi mm-hmm. est mën nañ jàpp ni tey projet jàppale ma mën nañ ko boole ci ñi nga xamante ne ñoo nara saafara mbir moom Euh, jërëjëf euh, yaakaar naa ni maam Sey li nga wax euh, effectivement ñu ngi profito ci antenne Afia FM di jaale suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo amee naqar ak tiis gi. Mm. effectivement wàllu mbëkk mi nekk na lu doy waar. Mm. te réseau Pop Dev nee naa la lu ko soxal mooy lépp lu jëm ci wàllum jeunesse bi. Mm. ñu ngi ñaawlu c'est vrai immigration clandestine bi nekk na loo xamante ni tey. Euh, euh, vraiment euh, naqari na ñu bëri. Mm-hmm. réseau POPDEV rek tey jii jàppale ma buñ koy seetlu nuñ ko tënkee mënuma wax ni à travers l'incubateur di réseau POPDEV évidemment mm. mën nañu wax ni bépp ndaw boo xamante ni peut-être dafa bëggoon def immigration clandestine mu am idée de projet nekk kat tey damay toogaat sama réew liggéeyee fii. en tant que euh, organisation. Mm-hmm. yaakaar naa ni euh, nos portes sont ouvertes pour mu ñëw ñu xelal ko euh, euh, tete ko yoonal ko pour mu mën a jariñoo lu mu xalaat ni moom la bëgg a def en terme de d'entrepreneuriat. Mm-hmm. donc euh, de ce point de vue. mën naa wax ni le réseau PopDev est assez sensible et attentif vis-à-vis de cette de ces cibles de jeunes ñi nga xamante ni ñoom ñooy bokk ci. mbirum euh, immigration clandestine bi mais nag am na tey ji ay projets yoo xamante ne spécifiquement avec euh, nguur gi dañ fi taxaw pour mën a taxaw ndaw ñi nga xamante ne réinsertion maanaam migrants et yi wala migrants yi donc projet yu mel noonu mhm. euh, am na fi mais incubateur bi en tant que rôle d'accompagnateur est disponible pour mën a accompagner ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, loru ci mbëkk mi wala ñoo bëgg dellusiwaat toog seen réew liggéey. Mm-hmm. Euh, comme da ngeen di liggéey ak waa Union européenne ñàkkul euh, xalaat ngeen organiser wala toog ak ndaw yooyu le waxtaan ak ñoom ak waa Union européenne comme ñoom. Euh, vraiment situation bi ñoom it benn instant xaw na leen dépassé. Euh, est-ce que yéen vous envisagez de de de parler avec ces jeunes à travers des discussions wala des sessions de dialogue comme ni ngeen koy defee. Euh, waaw tey jii mën naa wax ni ni ma la ko waxee rek le réseau est sensible à à toute préoccupation de la jeunesse et de ce point de vue donc on est membre avec benn projet boo xamante ni Union européenne moo ko financé ñu tuddee ko Migra donc. Mm. projet boobu lu ko tax a jóg mooy fexe ba waxtaan ak ndaw ñi ñi nga xamante ni ñoom ñooy émigré yi. Mm-hmm. mais aussi ñi nga xamante ni buñ ko dellu si waat fii seen dëkk euh, def fii seen business. Euh, lëkkaloo nañu ak projet boobu te lépp lu jëm ci wàllum euh, sensibilisation en tout cas ñu ngi seet. ci fan yi euh, nan la ñu mën a taxawal en tout cas avec d' autres organisations de la société civile. Mm-hmm. pour mën a euh, en tout cas contribuer mm-hmm. euh, ci sensibilisation ndaw ñi mm-hmm. par rapport à ce phénomène seen émission Actu Jeunes ba tey ñu waxtaan ak kii di Philippe Diatta di chef de projet euh, bu réseau euh, Pop Dev ci projet boo xamante ni si la nekk euh, tudd projet jàppal ma ñoom nag ñu nekk si phase pilote nekk diggante Dakar ak Thiès ngir waxtaan jeunes yi mais Philippe. Euh, si projet bi peut-être vous envisagez de euh, partir vers les autres régions di dem si yeneen régions yi parce que aussi problème emploi jeune euh, da ngeen ciblé Dakar mais si biir région yi fa la gën a tare. waaw c'est vrai que problème emplois des jeunes fépp le Sénégal mhm. mais tey nguur gi dafa jàpp nii rek phase bi bi may wax ni dans le cadre du projet jàppale ma da koy def dans ces deux régions il va de soi que. Euh, si diir 40 euh, mois yi nga xamante ne mooy diiru dundu projet jàppale ma bi bu fekkee à la suite de l'évaluation seetlu nañ ni kat résultat yi nekk na résultat yu am solo mhm. jombul euh, ñu yaatal ko yeneen région yu Sénégal mhm. waaw kon daal ndaw ñi ku ci nekk foo nekk ci biir réew mi rek jàppal ni peut-être un jour réseau PopDev mën na ñëw sa diwaan ngir xool nan lan lay euh, taxaw jàppale la mhm. euh, ba li nga xamante ni moo di sa projet nga mën ko monter doxal sa bopp am sa liggéeyu bopp waaw mën nañ ko yaakaar mën nañ ko yaakaar effectivement si effectivement bu fekkente ne euh, résultats yi après les quarante mois sont probants va de soi que nguur gi nga xamante ne moom moo moom moo sos projet jàppale ma mhm. dina ko yaatal yeneen régions yi mhm. te ma wax ni en dehors du projet jàppale ma am na yeneen xeetu projet yoo xamante ne tey jii aussi état bi mu ngi koy samp ci dëkk yi mm-hmm. euh, donc euh, lu ci am solo mooy ñëpp képp koo xamante ni xalaat nga ni tey jii am nga sa lijaasa wala am nga xam-xam pour taxawal sa mbiru bopp. Mm-hmm. wala sa entreprise. Mm-hmm. Euh, rapproche-toi des service compétents utal information yi nga xamante ni parce que ndaw ñi c'est vrai dañ doon wax xëy amul xëy amul wala jàppale amul mais war nañu aussi di fexe ba am information parce que l' accès à l' information dafa am solo euh, tey jii euh, mën naa wax ni 3FPT euh, mu ngi lancé ay offre de formation yoo mm-hmm. xamante ni pour dooleel ndaw ñi opportunité yooyu nag bu fekkente ni par exemple amoo euh, diplôme wala amoo métier. Mm-hmm. te euh, état bi ubbil opportunité pour nga mën a euh, am sa sa diplôme bopp sa métier. Mm-hmm. yaakaar naa ni c'est des opportunités en ne pas mm-hmm. loolu nag bu weesoo taxawal sa mbirum bopp sa entreprise. jéego yi ci war ak am na structure comme euh, projet jàppale ma ñu ngi fii ak euh, Positive Planète dans le cadre du projet jàppale ma mhm. donc accompagnement boobu ak yeneen xeetu euh, organisation yoo xamante ni état bi aussi mettre na ko fii en place en tout cas ñu ngi ciy béy seen waar bu baax a baax si mhm. politique de jeunesse bu bu bu état bi c'est vrai booba yaa ngi koy wax état moo financé projet bi état mooy jàppale waa réseau POPDEV mais aussi politique de jeunesse de façon général bu bu bu état du Sénégal nan ngeen ko gisee. waaw euh, politique de jeunesse bi tey euh, c'est vrai que état bi mi ngi ci góorgóorlu bu baax ah de mon point de vue yaakaar naa ni am na ay xeetu projet ANPEJ tey jii lépp lu jëm ci wàllum xëyu ndaw ñi en tout cas mi ngi ci jéem ay jéego xaw ma nag yan résultat la amagum mm-hmm. mais am naa yaakaar ni en tout cas mi ngi ciy jéem dara Euh, ni ma ko waxee rek mooy euh, peut-être euh, aspect maanaam li ñu investir dans le cadre de la promotion de l'employabilité des jeunes tey jii bu ñu ko doon xayma. Mhm. lan la jëriñ ndaw ñi. loolu beneen xeetu évaluation la. Mhm. parce que pour ñu xam impact bi am. ci euh, employabilité des jeunes am na ñu koy ñaxtu am na ay ndaw ñoo xamante ni ñu ngi naan euh, financement yi ñuy wax ne ñu ngi koy financé ndaw ñi ñoom day gisuñu ko loolu aussi feeñ na ci yenn waxtaan yi ñuy am ak ndaw ñi mm-hmm. loolu yëpp yaakaar naa ni tey ji état bi moom moo am à travers institution yu mu fi teg moom moo war a euh, dem vers les jeunes xamal leen ni boo leen bëggee bénéficier ci financement yi wala ci modalité yi jéego yi ngeen war a def pour mën a accéder à à financement financements. Mm-hmm. de ce point de vue je pense que am na lu bëri lu ñu def. donte peut-être euh, ba léegi euh, matagul euh, nit ñi daal en tout cas besoin yaa ngi fi ba tey doyagul. voilà besoin yaa ngi fi mu mel ni état bu Sénégal notamment le président de la République daf ko sentir récemment conseil des ministres bi mujj am il a mis en place le conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes. est-ce que euh, DER ba mu fi amee léegi yàggul. Mhm. tey ñu indiwaat leneen en plus yi fi amoon euh, euh, avant avant DER yooyu yëpp mi ngi am mais teewul le problème persiste. Mhm. mbir mi fan la nekk réellement. mbir mi yaakaar naa ni c'est à plusieurs niveaux hein c'est à plusieurs niveaux parce que d'une part. tey jii bu ñu waxee structures yi nga xamante ne état bi mettre na ko en place pour un peu promouvoir l'employabilité des jeunes peut-être que dans le cadre de la mise en œuvre de l'offre de service am na offre de service yoo xamante ne adapté wul par rapport aux critères exigés pour que jeunes yi mën ci accéder d'une part de mon point de vue mmh. d'autre part aussi mooy euh, ndaw ñi euh, aussi euh, si seen wàllum bëgg-bëgg ak besoin yu ñuy exprimer mën na am du méngoo ak ak réalité bi je prends mm-hmm. un exemple mm-hmm. tey ndaw ñi ci ëpp tey ku leen newoon tey demal Bambilor ut sa sa tool nga bay ñu bëri bëgg nañu toog bureau climatisé wala waaw donc loolu loolu aussi c'est c'est c'est des réalités mm-hmm. te boo seetloo en tout cas euh, je pense que euh, état bi mu ngi def ay jéego yu bëree bëri ci lépp li nga xamante ni mooy euh, promouvoir un peu des activités de production agricole parce que mm-hmm. tey jii suñu koom am na taxawaay boo xamante ne lu bëri dañ koy jéggaani te bu ñu demoon ba am suffisance alimentaire mm. mais ñun ñoo koy jëriñoo d'abord mm. suñu koom-koom moo koy jëriñoo mm. te ñu ci ëpp nag bon c'est vrai waxuma ni ku musul euh, xam mbirum mbay mu dugg ci mbay mais am nañ euh, ñoo xamante ni ci wàllum entrepreneuriat ñu ngi dellu di duggaat ci yeneen filières yoo xamante ni des filières porteurs yoo xamante ni euh, très rentable donc loolu yëpp en termes d'orientation pour les jeunes je pense aussi doit y avoir beaucoup plus d'orientation xamal ndaw ni kat euh, voilà les secteurs porteurs yi nga xamante ni tey jii ku ci soobu woon Euh, di nga gën a mën a en tout cas euh, tirer sa épingle du du jeu daal. Mm-hmm. waaw di wax rek 88 628 05 05 moom ngeen def mbokk yi ngir mën a mbokk si émission bi ñu si àndal tey ak waa réseau PAWDEF di dalal euh, Philippe Diatta di chef de projet boobu les réseaux ci ab projet boo xamante ne ñi ngi si ñu tuddee ko projet jàppal ma waaye it ci li nga xamante ne mooy ñoom accompagnement maanaam taxawu bi nga xamante ni. ñi ngi koy amal jëmale ko ci ndaw ñi si seen projet yi ñu yor wala sax si ay idée de projet yoo xamante ne am nañ ko parce que tamit du rek euh, nit ki ñëw ni leen lii sama projet la mais tamit na ñoo xamante ni ñi ngi am ay idée de projet mais élaboration bi mhm. ba mu taxaw Philippe mhm. parfois foofu day poser problème mhm. waaw euh, effectivement parce que en fait euh, gis nga taxawal idée d'entreprendre dafa am solo parce que bu fekkente ni man ni bëgg a taxawal sama entreprise idée de projet bi ci boppam maam sey moom ma koy bindal xamul lu ci biir parce que day am euh, jamono boo xamante ni peut-être euh, euh, bu ñu jàllee ci comité d'investissement yow mi nga xamante ni yaa porté projet bi yow la ñuy woowlu laaj na yow kat waaw nee nga entreprise bi nga bëgg a taxawal ci fànn bi mm-hmm. donc day am appropriation idée de projet bi dafa am solo mm-hmm. parce que bu fekkente ni yow mi porté projet bi kat li ci biir jéegooy lépp lii jëm ci wall euh, taxawal entreprise bi yow maîtriser wuloo ko il va de soi que ëllëg boo fekkee da nga koy da nga koy da nga koy dérouler day dina am ay ay ay sooxe yoo xamante ni parce que maîtriser wuloo ko au départ. Mm-hmm. loolu am na solo. deuxième aspect bi nga xamante ni bëgg naa ci insister mooy idée de projet boobu mën nga ñëw par rapport à la réalité du marché. Mm-hmm. ci li nga bëgg a def mën nga dem ba seetlu ni ah li ma xalaatoon ca njëlbeen bàyyi ma dellu si ginnaaw ma réorienté waat sama projet ci beneen fànn je prends un exemple ma bëggoon par exemple yarum ginaar par exemple ma dem ba seetlu ni tey jii dakaar par exemple euh, di fi yëngu ci wàllum ginaar kat bari na bari goo xamante ni tey jii bu ma taxawaloon sama poulailler euh, du ma mën a am bénéfice bi ma yaakaar ci sama projet. Mm-hmm. mën naa ne léegi comme gannaaw euh, par exemple yarum ginaar gi dama koy bàyyi ma soppi jublu ci wàllum par exemple ay pondeuse maanaam di. defar nen rek di jaay peut-être euh, euh, su ma defee analyse du marché mën naa xam ni ah tey ji euh, secteur boobu de am na des potentialités yoo xamante ne mën naa ci mën naa ko explorer mm-hmm. donc état état d'esprit boobu nag ci réorientation bi ak idée de projet initial bi ak nga ñëwaat ñu càmbar mbir mi ba xam ni kat ah opportunité yi fii la gën a bëri kat par rapport fii nga njëkkoon a jàpp ni peut-être foofu ngay soobu loolu am na solo trop ci ci ci création d'entreprise idée de création d'entreprise mm-hmm. tey waaw donc loolu yëpp euh, nekk na euh, ay ay ay jéego yoo xamante ni dans le cadre de l'incubateur process boobu dañ koy am ak ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy am ñoo amee idée de projet mm-hmm. ñu xool loolu ba ñu gunge leen pour ñu mën a taxawal loo xamante ne ëllëg buñ ciy soobukat Euh, dinañ fa jëlee ndam wala dinañ ci jëlee njariñ pour mën a euh, dundal entreprise bi. d'accord euh, Philippe ci wàllum entrepreneuriat gis nañ ni ndaw ñi bari na lool sax. ñoo xamante ñi ngi am seen projet mhm. ñi am ay idée de projet mhm. ñi nekk ay entrepreneur mhm. tey yéen seen i màkkaan peut-être am ngeen tout espace mais pour contenir cette masse là ndaw ñëpp est-ce que gis ngeen ni di ngeen ci génn waa réseau bi waaw euh, euh, xam naa ni euh, bu ñu demee ci jëmmi jamono dinañu taxawal sart am sart yi nga xamante ne par exemple tey jii ku bëggoon a ñëw pour ñu accompagner la dinañ la leeral ci yan anam lay doon. Mhm. effectivement espace bi tuuti na te boo seetloo incubateur bi am na salle de formation. Mhm. am na espace de détente am na espace de connection ak yooyu. Mhm. donc de ce point de vue je pense organisation interne lay doon waaw. bu ñu demee ba ci euh, kanam dinañoo xamal à publique publics euh, ku fa bëgg a ñëw ci yan anam la euh, joxe waxtu yi ñuy ubbi ak yu ñuy tëj donc loolu yëpp dinañ ko dinañ ko lancer tout très prochainement pour xamal tous les usagers daal ci modalité d'accès yi ak modalité d'utilisation de de au niveau de l'incubateur eh, waaw mais mën nañ jàpp ni benn inauguré ba léegi liggéey bi tàmbali na ndaw ñu commencé nañ ñëw waaw mën nañu jàpp ne tey ji euh, mbir mi euh, tàmbali na parce que euh, saa su ne dina am koo xamante ne moom moo fay nekk de de 9 à à à 17h30. Mmh. donc pour l'instant ñu ngi installer ordinateur yi pour enrôler maanaam képp ku fa ñëw aussi il faut ñu jël say filiation xam ni diw kat jaar na fi. Mm-hmm. lii moo ko taxoon a jóg. donc ci processus boobu la ñu la ñu nekk ni di taxawal. Mhm. pour compléter un peu euh, viabilité euh, kii euh, démarrage activité yi au niveau de de de l'incubateur. Mhm. jamono yi waa réseau PopDev lépp li ngeen di waxtaanee moo di wàllum entrepreneuriat c'est vrai mais sànq si présentation bi yaa ngi wax di ngeen di yëngu aussi. Euh, ci wàllum santé de la de la reproduction euh, loolu peut-être euh, waxtaan yooyu egg ak ak agoo leen ci mais tey wàllum santé de la reproduction ci Sénégal nekk na sujet boo xamante ni bu tabu dans les familles mhm. il faut que nga génn pour gis ONG yi wala ñu mel ni réseau POPDEV wala association de jeunes mhm. ngir ñu mën a waxtaan ak ak ak ak ak yow ci wàllum santé de la reproduction yéen mhm. waa réseau POPDEV lan moo tax ngeen gis ni il est nécessaire quand même ngeen dugal de la reproduction biir programme. Euh, merci euh, <coughs> maam da nga wax euh, effectivement réseau PopDev daanaka sax ci mbirum santé de la reproduction la tàmbalee activité yi bu muy door. Hmm. lu tax parce que dañu xalaat ni y a pas mal de choses effectivement l'accès à l'information ci ndaw ñi ci seen wàllum wér-gu-yaram jëmale ko ci santé de la reproduction sexuelle et reproductive. Hmm. Euh, gis nañ ni ay grossesse précoce maanaam ay situation yoo xamante ni peut-être euh, xale la mais euh, xale bu ëmb walla ñi seen jàng yàqu à cause de seen situation de de de, de mariage précoce ak yooyu problématique yi problématique yi bëri na ci wàllum santé sexuelle et reproductive mm. donc ñun fu ñu positionné mooy fexe ba euh, joxe euh, maanaam euh, joxe information la bonne information à ces jeunes pour qu'ils s'épanouissent et pour qu'ils puissent aussi euh, comment pour un épanouissement intégral de, de des jeunes de manière globale c'est vrai que euh, sujet la boo xamante ni waxtaan ci dafa xaw a sensible parce que ku wax wàllu santé sexuelle et reproductive nit ñi dañ lay gëstu xoolaat la mais euh, yàlla may na euh, réseau PopDev ci fànn yooyu muy am à travers les clubs réseau PopDev. Mhm. qui sont implantés dans les écoles ñu am ay séance de causerie ay séance de cause séance de causerie yooyu lu ñu ci jublu mooy yee xale yi ndaw ñi xam nga diggu nekk adolescence da ngay da door phase la bu sensible. Mhm. boo xamante ni phase jeunesse la donc am na lu bëri loo xamante ni bu la rëccee ci phase boobu rek. daanaka après da lay topp ci sa euh, mm-hmm. diir si diir dund mm-hmm. donc on a choisi euh, de de de, de parler des de, des sujets de la santé de la reproduction adolescents et jeunes pour un peu Euh, promouvoir la une jeunesse disons saine ñoo xamante ni peut-être du ñu nekk ci situation boo xamante ni après euh, di ko regretter. Mm-hmm. waaw ci seen wàllum dund donc loolu moo tax euh, ñu ñu am ñu c'est des séances de causerie c'est des séances de sensibilisation dans sur différentes thématiques euh, ci maanaam hygiène menstruelle des jeunes filles par mm-hmm. exemple euh, ci ci nu ñu sur wàllu planification familiale sur l'utilisation des préservatifs ak mm-hmm. yooyu loolu yëpp luñ ci jublu rek mooy pour aar leen ñu mën a traverser période boobu la bi nga xamante ne c'est une période très sensible et une période très difficile. très difficile à vivre. waaw c'est vrai mu mel ni monsieur Diatta. Euh, ñu bàyyi la rek nga nga nga tàggatoo euh, euh, wax aussi lancer message bi de la part du réseau POPDEV lan ngeen di wax jeune yi tey. Euh, jërëjëf donc euh, maa ngi delluwaat di remercier auditeur euh, Afia FM 93 point di leen ne en tout cas le rendez-vous nañu ko marqué ci seen agenda yi on sera là tout samedi chaque sam chaque quinze jours dinañ mm-hmm. fi ñëw mm-hmm. en tout cas waxtaan leen ci lu jëm ci wàllum entrepreneuriat de manière générale mm-hmm. mais aussi ci yeneen sujet yoo xamante ne peut-être euh, d'intérêt des jeunes euh, parce que wax naa ko ci njëlbeen bi may introduire euh, le réseau est dans le cadre des projets de de santé de la reproduction mais aussi dans le cadre de la nutrition et on est membre de plusieurs plateformes et de ce point de vue en tout cas lu ñu suñu kilifa yi sas mooy fexe ba euh, euh, gën a ñoŋal waxtaan bi xamal ndaw ñi lépp lu leen di amal njëriñ. Mm-hmm. donc tey jii dañ fi ñëwoon ci waxtaan ci wàllum projet jàppale ma bi nga xamante ne réseau PopDev ak Positive Planète euh, ñoom ñooy partenaire de mise en œuvre yi. Mm-hmm. projet boobu nag Union européenne financé ko mais à travers le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'insertion. Mm-hmm. ñu fas yéene en tout cas xamal ni kat. Euh, lu ñu tax a jóg ak aussi euh, anam yi nga xam jéego yi nga xamante ni moom la ñu taxawalagum ci euh, mise en œuvre projet boobu. di remercier aussi kilifa yi Afia FM ñi nga xamante ni ñoo ñu dalal en tout cas. ça a été un plaisir pour nous et je pense que euh, partenariat bu ñu sumb ni euh, ñu ngi yaakaar ni dina am peut-être sama yeneen collègues yoo xamante ne au niveau du réseau dina fi ñëwaat pour waxtaan ci yeneen thématique yu bokkul ak entrepreneuriat lu demee ni santé de la reproduction boo ñu ko yàlla may incha allah. jaajëf di ko jaajëfal bu baax a baax moom Philippe euh, Diatta nekk chef de projet bu réseau POPDEV ak leeral yi nga xamante ni indi na ko ci réseau bi waaye si projet jàppale ma di fas yéene dalal ndaw ñi liggéey bi tàmbali léegi ndax am naa ndaw boo xamante ni mu ngi lay xaar ci ci salle d'accueil bi <laughs> ngir waxtaan ak yow kon di jaajëfal mbokki xarit yéen it seen euh, safoo ak faale ak topp yi ngeen doon topp émission bi ñu leen di jox euh, rendez-vous ak beneen émission jëm si wàllum entrepreneuriat dans 15 jours incha allah ak waa réseau Pop Dev ba tey ngeen doon ay ndaw di entrepreneur wala sax porteur de projet seen coono jeex na rajo Afia FM ci lëkkaloom ak réseau population jeunesse développement du Sénégal ñoo leen di jagleel yile émission ñeel wàllum entrepreneuriat des jeunes samdi bu nekk lay doon ci seen rajo Afia FM 93 point 0 bu 16h jotee jàpp 17h ngeen di ci ànd.